fidèles internautes euh, Sénégal 7 ravi de nous retrouver dans votre nouveau numéro entretien spécial Euh, comme ni ñu koy faral di defee saa su nekk su évolution actualité bi amee bi évidemment ñu am un réel plaisir dalal fi koo xamante ni duñu ko présenter sénégalais yi le monde entier mu nekk benn ténor ci li nga xamante ni moom mooy la presse sénégalaise mais aussi ci li nga xamante ni moom mooy euh, évolution wala tolluwaayu réew mi à chaque fois dafa yëkkati ci plus moom wax li nga xamante ni moom mooy opinion waaye aussi rappeler à l'ordre waaye aussi andi ay points yoo xamante ni dafay permettre tey ku ci nekk mun ko interpréter à gis donc loolu nit ki noonu lañ fiy dalal ki nga xamante ni moom mooy suñu doyen. muy euh, monsieur Mahmoud Ibra kan je crois que duñu ko présenté ci askan wi en même temps mu nekk leader euh, DMC en même temps aussi mu nekk PDG E-Media. nekkoon nekkoon nekkoon directeur <laughs> général i media donc mm. ñu koy dalal. en tout Sénégal 7 mi ngi lay dalal di lay jox sa wàcc bu baax a baax. soxna Lal maa ngi lay nuyu maa ngi lay fay ci sa nuyoo. di nuyu mbokk téléspectateurs yi wala ñu wax rek internautes yi. Mhm. di leen jaajëfal ci dalal bi mais surtout di leen féliciter. di leen sargal wax dëgg yàlla euh, Sénégal 7 yàggul bi ngeen juddoo mais. jàpp naa ni bokk ngeen si tenoor yi sànq yaa ngi may présenté comme un ténor mhm. jërëjëf merci je le reçois avec beaucoup d'humilité euh, donc vraiment dama leen di félicité parce mhm. que plus de deux millions d'abonnés quand même euh, il fallait le faire te def ngeen ko te jeexagul mhm. li ma leen di ñaanal mooy ngeen gën a avancer ngeen góorgóorlu yéen a ngi ci yoon bu baax bi yàlla na yàlla sàmm allahuma amin merci beaucoup dañuy dem directement dans le ñu tàmbali ko ci li nga xamante ni moom mooy journée bi amoon démb ñu décréter une journée sans presse euh, ñu bëri observé ko ci li nga xam ne moom mooy euh, presse bi ñenn ñi dañu préféré continuer liggéey mais la majorité mun nañu wax ne euh, participer nañ ci journée boobu donc ñu bëggoon nga ñëw ci d'abord li nga xam ne moom mooy ossature bi muy forme beeg fond bi parce que tout simplement peut-être am na ñoo xam ne ignoré nañu exactement lu waral ñu décréter journée boobu noonu. jërëjëf waaw defe naa bés bi nga xamante ni tuddee nañ ko journée sans presse démb man ci sama gis-gis ak ci ay éléments yoo xamante ni mën nañ ci teg suñu loxo ak suñu bët ak itam li ñu dégg ci suñu nopp. mën nañu wax ne réussite la ndax euh, ñi ci ëpp bokk ñoom dañu observer journée sans presse bi loolu nag dañ ko war a rafetlu euh, ndax mën naa jàpp ne acteur des médias la même bu fekkente ni am na beneen ndomb boo xamante ni am naa ko acteur politique itam. Euh, wax nga ko sànq leader demain c'est maintenant. Mhm. donc en tant que qu'acteur politique aussi dama jàpp ni que euh, tas taskatu xibaar yi ak tasum xibaar lu am solo la ci réew rawatina nag réew bu mel ni Sénégal bi nga xamante ni dafa woote démocratie. Mhm. ndax démocratie boo ko waxee rek. nga ne liberté yi nit ñi am ci liberté yooyu bokk na ci liberté de la presse te boo tuddee liberté de la presse tudd liberté d'expression itam mhm. ndax citoyen bi euh, bu amee gis-gis ci lenn réewam ni muy doxee Euh, ndax courant bi am na wala amul ndax ndox mi am na wala amul ndax njëg yi yokk na wala wàññeeku na euh, am na benn opportunité buñ ko jox mu ñëw toog set tivi wala dem ci beneen télévision wala ci rajo wala bind sax ci xalimaam ci journal walla ci site d'information mhm. donc liberté de la presse lu ëmb na itam li ma tuddee liberté d'expression donc loolu dañ ko war a aar man ci sama gis-gis donc ci benn côté bi maanaam acteur de la presse beneen bi acteur politique ak ñetteel bi muy citoyen citoyen tout simplement defe naa réussite la te loolu dañ koy dañ koy rafetlu euh, tey ci biir euh, journée sans presse bi gis nañu aussi euh, yeneen yi doléance yu si juddu ci yenn posture yi nga xam ne ñenn ñi jàllale nañ ko comme quoi que peut-être tey patron de presse yi observé nañu benn journée sans presse réussir na quoi pas duñu xaar ñu décréter beneen journée boo xam ne dañu koy jagleel ñi nga xamante ni dañu nekk ci presse bi di ci dundu précarité bi par exemple hmm. reporter yi yenn journalistes yi wala techniciens yi da nga ciy gis ku ci nekk ci bërëbu liggéeyukaay amul contrat hmm. paiement bi demeewul noonu hmm. donc y a beaucoup de problématiques yoo xamante ni peut nañ ci mën a tenir ñoom aussi ñu mun leen a jàppale ñu mën a liggéey dans les règles de l'art euh, soxna Lalla jafe-jafe yi moom euh, ci boor yépp la ki nga xamante ni mi ngi liggéey soxla na bu weer bi dewee ñu fay ko salaire am soxla na euh, ñu cotisel ko. Hmm. IPRES pour retraite bi caisse de sécurité sociale pour itam loo xamante ni euh, liggéeykat daf koy soxla euh, kenn ñaanu ko boo amee accident de travail. Hmm. loolu par exemple ay caisse de sécurité sociale walla boo nekkee jigéen. Hmm. nga nekk ci ci diggante ba yàlla may la doom. loolu yëpp. caisse de sécurité sociale itam moo koy moo koy jël ba ci l'impôt yi aussi loolu defe naa du débat boo xamante ni war nañ ko daw effectivement l'impôt sant bi mooy fay loolu ñëpp d'accord nañ ci d'ailleurs amul benn citoyen bu mën a taxaw ne man jël naa entreprise surtout bu ñu waxee entreprise mm-hmm. euh, li ñuy waxee li ñuy wax impôt sur le revenu wala collecte TVA ak yu mel noonu nga ne man duma ko fay li am mooy entreprise de presse bi ci boppam mi ngi fay man toujours dama koy préciser ne bu ñu ne fayuñu mhm. mi ngi fay waaye dafa toll ci ay jafe-jafe mhm. parce que amul ressource yoo xamante ni yu koy permettre mu respecter ay engage engagement am mhm. te loolu wax dëgg yàlla soxna Lalla bu ñu bëggee waxante dëgg loolu du entreprise rek loolu moo tax man ma may may may may ñaawlu bu dee kàddu gi eh, ëppul ni ñuy singale maanaam entreprise de presse yi alors que eh, keroog maa ngi jox sa benn eh, naataangoo benn exemple ma ne Woodside mm-hmm. mi ngi yëngatu ci wàllu pétrole Woodside boo ko jëlee ci alalam mm-hmm. mën na jënd presque toutes les entreprises de presse du Sénégal. Mhm. parce que dafa am dañu dañu am doole am xaalis te pourtant ñu ngi leen di poursuivre ci affaire u impôt. Mhm. te te kat 767 milliards. te tey gis naa gis naa itam ñu ne avocat yi ñu ngi leen di poursuivre. Mhm. ainsi de suite ainsi de suite donc pour man situation bu demee noonu yow boo nekkee ci nguur bul am benn vision bu bu gàtt vision bi dafa war a yaatu. pour nga xool lan moo ko indi te loo xamante ni juddoowul tey wax dëgg yàlla yàgg na juddoowul tey mais à chaque fois bu problème bi amee nit ñi dañuy toog waxtaan régime bi ñëw dafa ne moom ay affaire amnistie fiscale moom vraiment bëgg ci dugg loolu aussi mën nañ ko comprendre d'autant plus que même loolu ci ay wat at yi passé saa yu ñu waxee amnistie fiscale effectivement di nga gis ay acteurs des médias yu ne loolu du solution. Mhm. lii solution bi nañu xool te loolu itam waa CDEPS CDEPS. Mhm. Euh, def na proposition bi dafa ne nañu xool ban fiscalité moo gën a adapté mhm. à l'économie de la presse code de la publicité bi nga xamante ni war nañ ko xoolaat ñu xoolaat ko gisoo sànq yaa ngi wax journalistes yi reporters yi dëgg la mais loolu moo waral loolu moo waral ñu organiser les assises de la presse mhm. te boo xoolee assises de la presse SYNPICS du mooy syndicat liggéeykatu presse bi mhm. un syndicat défend les intérêts matériels et moraux mhm. de ses membres donc liggéeykat yi SYNPICS mi ngi ci CDEPS bi nga xamante ni mooy patronat de presse bi mi ngi ci euh, convention des jeunes reporters uh-huh. mi ngi ci CORED mi ngi si uh-huh. ak yeneen association ou organisation faîtière comme ni ñu koy waxee uh-huh. bokk ci métier bi te sax ñu yaatal ko am na ay acteurs yoo xamante ni bokkuñu sax ci presse bi woo nañ leen ñu bokk ci assises yi gis naa d'ailleurs sama mag euh, Makhtar Silla euh, nekk PDG Label nekk aussi le président commission scientifique bi war na ci ay waxtu walla ay fan yu néew wax ak Sénégal yi pour wax résultat yi fan lañ ci toll parce que dina am benn rapport boo xamante ni dinañ ko publier jébbal ko nguur gi jébbal ko aussi les différents acteurs yi nga xamante ni affaire u avancement li ñuy woowee journalisme ak de manière générale les métiers des médias ñu war ko càmbar xool lan moo ci lan niñ koy assainir ci wàllu tàggat bi ci wàllu mm-hmm. formation ci wàllu payoor bi wax nga ko contrat lu tax par exemple liggéey kat boo xamante ni da ngay xëy ba ngoon euh, ba weer jot weer bi de ñu war la fay duñ la fay mhm. wala léeg-léeg euh, xëy na li ñu lay fay pour yow dafa day day day néew loolu yëpp lu ñu war a lu ñu war a xoolaat la encore que aussi nañu reconnaître que Sénégal am na quand même avancement ci wàllu traitement mhm. parce que bu ñu fàtte ni dafa am d'abord convention collective boo xamante ni dafa war am connexion aussi ak la convention interprofessionnelle mais convention collective boobu pour ñëw ci convention boobu mhm. yàggul SYNPICS dene dénoncé woon nañ ko a juste raison parce que convention la boo xamante ni depuis 1992 mhm. ñoom ndeysaan ndem si yàlla Babacar Touré Sidi Lamine Niass Euh, Bouba Diop euh, promotion su ma juumul ñoom Abdoulaye Bamba Diallo ñoo signé woon convention boobu xam nga loo xamante ni depuis 92. Mhm. waroon nañ ko xoolaat mhm. te xoolaat nañ ko te am na ay entreprise de press yoo xamante ni xëy na am na ñoo xamante ni respecté wu ñuy seen engagement te loolu c'est une réalité mm-hmm. mais am na ay entreprise de presse yoo xamante ni non seulement respecte nañu convention collective bu bees bi mm-hmm. mais def nañu sax mieux que la convention collective mm-hmm. mais mais toujours aussi dans ces entreprises de presse yi respecté am na ay jafe-jafe sànq yaa ngi may yaa ngi may présenté comme Euh, euh, ci euh, ancien directeur général E-Media actionnaire la ci ci ci entreprise boobu mm-hmm. tout le monde sait muy que muy E-Media muy yeneen entreprise de presse effectivement am nañu ay jafe-jafe liggéeykat yi am nañu soxla ñu war koo ñu war ko ñu war cee taxaw ñu xam ne aussi du loo xamante ni aussi dafa situation la boo xamante ni def ci def fi mës a nekk non c'est une situation ki a évolué amoon na un moment euh, xëy na les chose fonctionnaient normalement mu am un moment effectivement entreprise yi commencé am ay tolof tolof mhm. liggéeykat yi di ko ressentir muy journaliste bi muy technicien bi mhm. muy euh, animateur bi muy commerciale bi nga xamante ni da ngay dem di indi koppar di ko dugal ci kii bi yow ci sa bopp da nga am ay jafe-jafe ci wàllu traitement ba ci yeneen liggéeykat yi ñi nekk ci administration bu ñu leen fàtte parce que entreprise de presse dafa yaatu ñi nekk aussi chauffeurs yi parce que dañuy yóbbu reporters yi sur le terrain ainsi de suite ainsi de suite comme ni ñu koy waxee ku lim juum man nangu naa ne que entreprise de presse yi war nañu taxaw seetlu xool nu ñuy régler problème yi te mënuñu régler problème yi sans l'État parce que foo mënti dem même bu fekkente ni dañu war a xoolaat le modèle économique te loolu ma d'accord ci nan la ñu war a def ba GAFAM yi yéen ñi Sénégal set loolu war ngeen ko xam bu baax yu mel ni ay Google Amazon Facebook euh, ainsi de suite ainsi de suite war nañu mën a xool nan la ñu mënee euh, bénéficier wu ci la manne financière bi nga xamante ni GAFAM yi dañ koy dañ koy produire mm-hmm. mais loolu entreprise yi mën nañu organiser wu certes te war nañu organiser wu mais bu ci état jàppul duñ ci mën a profiter comme ni mu waree boo demee France wala nga dem États-Unis tey jii seen média dañuy am ay ressources yu am solo yoo xamante ni ëpp na sax pétrole ak gaz bi ñuy wax tey mm-hmm. mais li tax ñu am loolu seen état yi daf dañ leen jàppale léeg sax Union européenne mooy taxaw ne loolu il faut ñu vote ci ay loi parce que yéen waa Google yéen Amazon Facebook li ngeen di def jaaduwul xaalis bi ngeen di am te mu bari lool lool lool lool yi war nañ ci am seen wàll man je rêve de ça plutôt que seulement que état bi di contenté wu ma jeexal foofu mhm. euh, di wax ne damay appliquer TVA numérique loolu xam gis ngeen ko mhm. TVA numérique bi defe naa bu ñu yaataloon waxtaan bi mhm. ne waa média yéen waa média yi xam nañ ne affaire numérique lu leen soxal la loo xamante ni dafay permettre seen modèle économique évoluer ngeen gën a am doole. Mhm. ñun état état bi woo nañ leen ngeen ñëw ñu waxtaan parce que dañuy appliquer benn TVA TVA numérique mais warul rek nekk loo xamante ni dafay dem ci keesu état bi nan la ñu war a def itam ba koppar yooyu mën a dem ci seen seen seen gafaka mhm. su ko defee entreprise bi gën a am doole mhm. justement. mu am possibilité fay l'impôt mhm. fay salaire yi muy à temps mhm. fay yeneen obligation yi nga xamante ni euh, dafa nekk ci ndoddu entreprise effectivement alors état bi nga waxee foofu la ñuy dugg parce que tout simplement euh, gis nañu peut-être ci différent euh, postes yi nga xamante ni ku ci nekk yëkkati nga sa kàddu comme solution alors est-ce que entamé ngeen benn procédure médiation entre vous les acteurs de la presse ou bien les entreprises de la presse avec l'État du Sénégal peut-être que fi nga daanele le ministre euh, de euh, de la communication war na def sorti suba espérons que peut-être dina ñëw ci loolu mënuñu anticiper mais juste est-ce que am na médiation boo xam ne commencé ngeen ko pour trouver une solution face à cette crise waaw euh, soxna la la defe naa moom loo gis nu mu metti metti metti waxtaan war na mën a am même ñiy guerre sax fu ñuy mujjee mooy toog ci mhm. table bi loolu moo tax tout en respectant ku nekk sa gis-gis ak commentaire bon état bu buñ leen faale bu leen neexee sax ñu tëj pendant un mois wala un an suñu yoon nekku si defe naa loolu gis-gis bu gàtt la parce que bu ñu fàtte ni même bu fekkente ni am nañu tey ay critique yi ñuy def ci presse Sénégal presse Sénégal yàgg na fi te fekkee na lu baree baree bare mhm. euh, dañ ko doon sa tàccu bu demee nag jamono di dox ba mu am le phénomène des réseaux sociaux effectivement qui a libéré davantage la parole mm-hmm. boo xamante ni dafa war a sax obligé les médias ñu xoolaat nan la ñuy euh, euh, traiter l'information mmh. tout en sachant que ki war a collecter traiter ba diffuser maintenant information koo xamante ni dañ ko tàggat mm-hmm. te turam mooy journaliste mm-hmm. donc état bi bu mu am gis-gis bu gàtt euh, man bu ma déggee léeg-léeg euh, muy le président de la république ba parfois le premier ministre ba ci yenn ministres yi ñuy wax d'une certaine façon ci ci ci presse bi damay ne euh, xëy na peut-être dañ leen expliquer wul walla quelque part am na loo xamante ni ça ne va pas dans leur façon de concevoir d'abord seen responsabilité parce que njiitu réew boo demee ba ne man déformation professionnelle la la la am inspecteur des impôts et domaines la man l'impôt bi laay gis fay l'impôt moom fay rek xam nga loolu gis-gis la waaye ndax loolu rek la ndax amul ay yeneen considération yi nga war a tenir compte nga teg ci ne man kenn du ma chanteloo jeune d'ailleurs je ne te je ne sais même pas chanter est-ce que aussi du bras de fer bi nekk seen non non loolu pour man justement discours boobu effectivement lañu ñu war a la ñu war a bàyyi certainement de part et d'autre waaye waaye waaye aussi euh, lan nañu d'accord ni bu presse bi sentir ne ah lii nii euh, jëmul kër li ñu bëgg mooy euh, rey ñu mhm. tëral ñu rendi ñu loolu nag ku bëgg a dee weexku mhm. il faut nga taxaw nga wone sa bopp nga wone surtout wone bopp bi c'est dans le sens de montrer que presse dafa am honte dafa am dafa am solo mais c'est c'est la mort dans l'âme moi j'en suis convaincu que Mamadou Ibra Kane sama sama turandoo di ko di ko mhm. jaale d'ailleurs euh, yaayam euh, bi bi bi wàññeeku yal na ko yàlla xaaree àjjana mhm. Mhm. mais wax na fi ñëpp dégg ko yéen médias yi xam ngeen ko ne bind nañu président de la république ñaari yoon am na sax benn lettre ouverte pour prendre l'opinion à témoin tontu wuñu dalaluñu d'accord kon man pour man munuñu reprocher aux entre des entreprises de presse notamment seeni responsable mhm. de jiitaluñu waxtaan jiitaluñu jàmm mhm. jiitaluñu dal te comme ni ma ko doon waxee sànq la mbiru difficulté entreprise de presse yi du lu bees mais chaque fois bu bu bu bu amee problème dañuy toog waxtaan te je trouve qu'il y benn benn aspect boo xamante ni euh, dafa mel ni dañuy nëbb euh, dëgg bi en tout cas la vérité dans sa totalité parce que problème bi du du l'impôt bi rek mais boo xëyee nga ne les contrats là dama koy suspendre mais problème mu convention. les conventions dama koy suspendre. Mm-hmm. te ki ki jël décision suspendre moom moo signé un directeur général un ministre qui signe nga yeewu nga ne lii nii man dama koy arrêté mais c'est pas parce que ministre bi fi nekkoon nekkatu fi yow nga ñëw tu prends une décision unilatérale parce que la continuité de l'État la signature de l'État dafa am solo te on doit même aller au-delà de parce que aussi loolu mooy sama cër en tant qu'acteur politique j'essaie toujours d'aller au-delà de la question uniquement de la presse parce que y a beaucoup de décisions unilatérales yoo xamante ni État du Sénégal jël na ko avec avec le nouveau régime bu ñu jëlul toutes les garanties mhm. d'abord am les garanties juridiques am les garanties également au plan même diplomatique nga dagg contrat avec benn état boo signal wala benn société bu am doole avec un état boo xamante ni c'est ton partenaire bu yàgg-yàgg je prends l'exemple de l'Arabie saoudite le contrat par exemple Aqua Power suivre ngeen ko Arabie saoudite xam nga lan la peser ci wàllu li mu dugal ci ci ci ci koppar ci ci réewu Sénégal depuis bi ñu créer par exemple la banque islamique de développement depuis 1973 c'est 4 milliards de dollars 4 milliards de dollars c'est 2400 milliards de francs fa loolu benn aspect rek la plus maintenant nga jël que l'Arabie saoudite muy à travers la BID banque islamique de développement wala la la BADEA e euh, l'Arabie saoudite participe au financement de l'autoroute Dakar Saint-Louis donc man pour man autorité yu bees yi xëy na li ñu toog yàggul xëy na aussi ils sont venus avec une volonté comme ni ñu koy waxee de rupture de souverainisme lu tout ça c'est très bien kat moo buggul rupture kat moo buggul souveraineté mais nañu xam ne aussi loolu munoo ko doxal tant que respecté woo l'état de droit état de droit mooy que ni ñun ñëpp on est soumis au droit ak commencer par l'État lui-même qui doit être également soumis au droit donc nañu respecter mhm. droit wu presse bi presse bi aussi xam ne am na ay ay wareef ay devoir mu respecter ko su ko defee bu ñu waxtaanee ku nekk euh, nga nga wax lan mooy euh, say contrainte ak nan nga bëgg ñu xoolaatee la gouvernance du secteur de la presse xëy na déggoo dina am ñu euh, repartir sur de nouvelles bases euh, parce que presse quoi qu'on dise quoi qu'on dise la presse est très importante dans un pays pour démocratie pour aussi gën a yee nit ñi pour aussi justement conscientiser les masses imagine par exemple pandémie covid 19 bi mu fi amee mbass mi bu ñu amul woon ay médias yuy sensibiliser nit ñi parce que les médias n'oublions pas mooy les masses médias fi ñuy dem euh, à travers tout le pays et au-delà quand même loo xamante ni lu am solo la waruñu ko négliger. Mm-hmm. en tout cas c'est important donc balaa ñuy tëj euh, point boobu carrément yëpp mm-hmm. dama bëgg rek ñu rebondir ci dernier point bi ci euh, sujet boobu muy en tant que ancien directeur général bu e mu mel ni am na benn problème justice bu amoon sa diggante ak benn leader boo xamante ne mu ngi wuyoo ci turu Abdoulaye Sylla ñenn ñi ne plainte am na si ñu ne ay accusation waaye xam naa ni tunga ne du teew ñuy nataal ko <laughs> dafay baax ñu apporter ci ay leeral par rapport ak euh, plainte waaw euh, man effectivement lal comme ni nga ko gisee nga xëy gis ko man noonu laa gisee ni que euh, monsieur Sylla dafa def ñu porter plainte Euh, bi ma ko gisee d'ailleurs benn fan ñaari fan euh, ba ñetteeli fan bi parce que dama nekkoon ci situation boo xamante ni. Mhm. mënuma woon réagir comme ça du tac au tac. Mhm. amoon naa yeneen yitte surtout ci sama biir sama biir famille euh, amoon ko ci wàññeeku. di ko ñaanal yal na ko yàlla yërëm. trois jours après la la commencé di quand réagir pour rétablir la vérité. d'abord euh, monsieur Sylla dafa def porte presse parce que boo porter plainte euh, plainte moom boo ko déposé defe naa fi nga ko déposé enquêteurs yi dinañu def seen liggéey mhm. mais après mu nekk nag ci jéebaane euh, ma gis ci benn volonté de nuire de ternir l'image de professionnels d'abord des médias qui ont presque ay trente ans de carrière am ay jaar-jaar fàttali dafa am solo jaar-jaar bi ñetti exemple rek laa ciy joxe encore que gën na yaatu foofu mhm. Walfadjri liggéey nañ fa ba jóge fa mhm. amul kenn ku mësa dégg que def nañ fa ay tooxaduna man jiite naa Walfadjri FM te mën naa wax ni suñu génération bu Walf doonee lu mu doon tey ak encadrement suñuy mag ñenn ñi ñu ngi dund euh, comme Tidiane Kassé ñoom Ousseynou Guèye ñoom Seydou sal ñoom Abou Abel Thiam ci la ñu bokkoon ñoom Mamadou Ndiaye nekk tey E-Media ak ndem si yàlla Sidi lamin nga xamante ni moo sos kër gi ndem si yàlla Mame Less Camara ndem si yàlla Mbaye Sidi Mbaye ndem si yàlla Abdourahmane Camara Jean Meissa Diop yàlla neen yàlla yërëm ci encadrement boobu suñu génération defe naa tey bu ñu waxee Walf est un empire médiatique suñu loxo mi ngi ci biir bu baax a baax ñetteelu exemple yi mooy euh, groupe future Média nekk itam un empire médiatique tey un leader euh, parmi les leaders des médias waxuma rekk Sénégal mais au la jiite naa RFM pendant presque dix ans nekk directeur général bi pendant six ans defe naa bu GFM nekkee un succès médiatique suñu loxo suñuy génération mi ngi ci biir tey gi ñen ñenn ci génération boobu ñoo téye kër yi media Alassane Samba Diop Mamadou Ndiaye bi ma tuddoon léegi Boubacar Diallo ñoom Antoine ñoom xalifa ku lim juum ak ñeneen ñeneen ak xale yi nga xamante ni ñu ngi foofu di daan seen doole dans un contexte difficile defe naa te itam e kenn mënul ne du réalité médiatique te loolu wax dëgg yàlla bu dee dëgg rek la suñu loxo mi ngi ci biir kenn musul dégg ne luubal nañu xaalis donc li mu doon def moom monsieur Sylla mooy jéebaane mooy porte presse di ternir suñu image mais peine perdue peine perdue beneen ponk bi foog nit ñi xam ne que monsieur Sylla du propriétaire immédiat vingt cinq pour cent la am face à ñaata boo jëlee cent pour cent soixante quinze pour cent maanaam ñun les professionnels ñeent yi mu tudd ñett yi plus man ñu am ay action yu takku du ma dugg ci détails yi parce que du ma bëgguma joxe des informations quand même Euh, encore que lui bu fekkente ni dafa jàppee boppam homme d'affaires et non homme des affaires comme ni ma koy woowee il aurait dû se garder de génne yenn information yi pour man sax tey gi dafa perdre toute sa crédibilité en le faisant parce que boo nekkee ci business non seulement au Sénégal et à l'étranger nga wone xar kanam ne yow bu entreprise nekkee ay jafe-jafe wala boo amee problème ak sa associé. Mhm. lépp loo xamante ni information confidentielle danga koy sànni ci mbedd mi ça veut dire que amuloo benn crédibilité. Mhm. nit ñi war nañ la moytu. d'abord du propriétaire u E-Media ñetteel bi ma jeexal foofu parce que bugguma franchement. di dugg ci yenn détail ñetteel bi ñetteel bi moom monsieur Sylla dafa doon préparer benn opération bu ñu koy ñuy woowee OPA. OPEA pour maanaam teg loxoom ci groupe E-Media bi mu gisee ni ñun tooguñu rek di nelaw serte ay journaliste lañu mais du ñu ay walaakaana mm-hmm. man d'accorduma ñuy considérer journaliste que warul am dara warul man dara boo solee sax yëree ñu ne foo ko jële mm-hmm. boo dawalee oto ñu ne foo ko jële boo solee daal ñu foo ko jële mm-hmm. boo voyagé ñu ne fu mu jëndee billet d'avion ko ku ko financé dafa sàcc dafa ceci dafa cela d'abord je pense que du ñu ñooñu te defe naa ku ci nekk tey journaliste ci réewu Sénégal fulla boobu ak fayda boobu war nga ko mën a am mm-hmm. donc loolu échoué na fi may daanale aussi monsieur Sylla est sous l'emprise de certains bëgg a ay comptes politiques Mamoud Ibra Kane ñëpp xam nañ ne tey acteur politique la moom waxu ko mais acteur politique la nekkoon na fii candidat nekkoon na fii candidat dem ba ci parrainage bi ñu kii ko tey gii am na nguur gu bees euh, il a certainement besoin peut-être de donner des gages euh, te xam nañu raison bi loolu li ci kanam raw li gët comme comme ni ñu koy waxee mm-hmm. bon am na plainte bi ñu déposé bu jotee certainement dinañ ñu woo mais je dois préciser ko moment où je parle pour te dire que portée presse bi la gën a jiital certainement plainte bi puisque euh, plainte bi wér na certainement dañ ñu woo nañu expliquer waaye mhm. dama koy wax euh, euh, dénonciation calomnieuse bi mu def ak diffamation bi mu def teg ko ci suñu der mhm. loolu itam luy ñëw la eh, ci kanam incha allah loolu daal laa bëggoon wax parce que bëgguma dugg ci détails yi. Mhm. parce que tey gi am na koo xamante ni moom moo am euh, pouvoir ak autorité ak habilitation wax au nom du groupe yi media surtout concernant yenn détails yi mais mois je me prononce d'abord benn parce que actionnaire la mhm. ci ci ci kër gi mais ñaareel bi euh, dama nekk koo xamante ni aussi plainte Euh, l'homme des affaires bi daf ma cible ok d'accord je crois que point boobu leer na donc dañuy dem sur les question politiques. Euh, comme ni ma ko waxee woon depuis le début euh, tey gisoon nañ la en tant que leader DMC tey ñu xëy ñu ne dañuy dissoudre assemblée nationale est-ce que jàpp nga ne loolu solution la oui non naturellement parce que euh, la la en réalité ñu rek ne dañuy dissoudre assemblée xam nga bi ñu saa yu ñu defee élection législative ba euh, ñu installé député yi ñu ubbi législature législature bi comme ni ñu koy waxee. Mhm. Euh, dafa am ci suñu charte maanaam constitution. Mhm. charte ndey réew noonu la ah. noonu lañ koy waxee ci wolof bu mhm. bu bu bu bi. <laughs> suñu constitution dafa ne euh, tant que législature bi amul ñaari at mhm. kenn mënu ko dissoudre mhm. léegi nag ñaari at yi mat mhm. euh, léegi mu mat des na ay ay ay ay fan tuuti parce que le 12 septembre lañ ko installé woon certainement à partir du 13 septembre mën nañu dissoudre l'assemblée à tout moment te gis nañu effectivement ci ay xibaar que le président de la république saisir na conseil constitutionnel pour laaj leen seen xalaat kañ la mën a dissoudre te loolu defe naa conseil constitutionnel dina ko wax te ñun si lu ñu comprendre euh, as tuut li ñu xam ci mbirum droit ak ci expérience également bi ñu am parce que yàgg nañu gis assemblée nationale tous les débats dissolution motion de censure ak yooyu mm-hmm. mënuñu dissoudre assemblée nationale bi tant que diir boobu jotul. Mhm. donc euh, li gën a am solo mooy en tant qu'acteur man je me dis dañu war a pare à toutes les éventualités. parce que mën na président dafa mel dafay cacher son jeu bon politique aussi moo demee noonu. Mhm. est-ce que dafay dissoudre. am na benn signal bu mu def mais bu ñu fàtte bu ñu fàtte ni président Abdoulaye Wade moo doon wax c'est un homme nuancé bu tourner à droite euh, day day jàdd à gauche voilà voilà bu bu clignoter à droite day jàdd gauche mm-hmm. euh, xëy na aussi beneen arme bi président am mooy le référendum mm-hmm. parce que am na ay réformes ay lois yoo xamante ni yu am solo euh, ci ñoom mm-hmm. yu ñu war a jàlle te loolu mën nañ ko jàlle soit ak assemblée boo xamante ni euh, am nañu def nañu ay élection mu ñu am majorité bu am doole mhm. comme ni koy waxee majorité qualifiée mhm. te man gëm naa ni loolu duñ ko am mhm. euh, parce que euh, quand même ya a beaucoup de choses yoo xamante ni euh, tey gi sénégalais yi ils ne suivent plus ils ne suivent pas en tout cas euh, et ils ne voient pas une vision claire bu bu régime bu bees bi am. Mhm. plus maintenant opposition bi dafa war a takku dafa war a taxaw organiser wu pour euh, am benn programme sax de gouvernement. Mhm. Euh, parce que lii nii bu continuer nii on finira par par tout simplement comprendre que dañu tële. Euh, bu continuer nii donc mën na nekk dissolution comme mën na mën na nekk référendum mais quel que soit alpha. je pense que boo nekkee un acteur politique tu dois te préparer à toutes les éventualités te loolu euh, ñu ngi ci taxaw bu baax a baax en tant que demain c'est maintenant au-delà de ça Euh, avec également ñi nga xamante ni ñu ngi waxtaan ak ñoom. d'accord ñu gisoon sa collaboration ak ki nga xam ne moom mooy l'ancien premier ministre di Amadou Ba euh, jamono ji mi ngi def ay tournées même su fekkee silencieux silencieusement la koy def. Hmm. Euh, mi ngi mi ngi mi ngi mel ni kuy préparer wu pour mën a revenir ak en force noonu laa ko mën a waxee parce que gis nañu ne mi ngi def ay tournées ainsi de suite euh, yow amoon nga collaboration boo engagé woon ak moom ci présidentielle yi euh, depuis lors déggaatuñ la ci ñu bëggoon aussi nga ñëw ci loolu est-ce que da ngay continuer soutenir est-ce que da ngay continuer collaboration bi wala da ngay dem yow kese. Hmm. bëggoon nañu xam ban suite ngay jox loolu. j'aime bien le mot collaboration. parce que soutenir dafay euh, dafay xaw a euh, nu mu tuuti euh, réduire les choses pour man ci collaboration ak alliance la ñu nekk. parce que bu ñu fàtte ni bi Amadou Ba nekkee l'ancien premier ministre Amadou Ba nekkee candidat à l'élection présidentielle demain c'est maintenant ñëwul seey ci moom ñëwul seey ci ci APR partie bi mu bokk walla seey ci Benno Bokk Yaakaar. dañu ne ñun dañu lay eh, dañu gëm ne sa candidature candidature bu bu baax la dañu gëm ne bu la yàlla mayee nga nekk président de la république Sénégal dina am njiit boo xamante ni bu ko mat mhm. bu am expérience boo xamante ni dina mën a liggéey liggéey bu gaaw mhm. liggéey bu bu baax mhm. liggéey bu taaru ak avancement bi ñu gën cee sori ci wàllu sax développement loolu lu ñu gëm la par rapport ak la personnalité de de Amadou Ba par rapport ak jaar-jaaram par rapport ak tempéram tempéramam par rapport ak expérience am ñu nekk donc en alliance demain c'est maintenant di fàttali euh, euh, le président du Ba dafa def déplacement ñëw ba suñu siège demain c'est maintenant te du moom rekk moo defoon loolu am na yeneen candidat aussi maa ngi leen di remercier amoon nañu itam ba xam yitte boo xamante ni dañ ñu ko joxoon ñu déplacé wu ñu waxtaan ak ñun ñenn ñi ñun ci suñu bopp ñoo déplacé wu walla ñu wootante téléphone ak yu mel noonu tey gi alliance boobu alliance ma alliance alliance boobu nga baal ma collaboration comme ni nga ko waxee mi ngi continuer parce que amul dara lu ñëw bu koy remettre en cause mhm. euh, maintenant monsieur Amadou Ba euh, mi ngi def ay tournée mhm. tournée yi itam Euh, léeg-léeg ngeen gis ma ci mm-hmm. parce que aussi euh, dañ ci ànd euh, mais mais mais euh, alliance la li ci des maintenant euh, on en politique du ñàkk xëy na ñu gën koo dooleel Euh, en tout cas le moment venu aussi on avisera. alors jàpp nga ni opposition bi aussi sànq wax ko ko. Mm. dafa laaj ñu ut programme. bien déterminé. Mm. est-ce que aussi jàppoo ni euh, façon bi ñuy agiré façon bi ñu commencé opposé woo est-ce que dinañ leen mun a accorder importance wala équil euh, euh, comment dirais-je crédibilité en fait. façon bi naka la ban façon la. par exemple nit yi dañuy gis ñenn ñu boog. dañuy mm. gis ne. Mm. c' est des débats un peu personnels wala boog mm. de règlements de compte crypto personnels. Mm-hmm. parce que tey bu fekkee dañ ne dañu bëgg benn opposition républicain. Mm-hmm. donc dañu war a dem ci débat d' idée. Mm-hmm. par exemple euh, gouvernement bu bees bi wax na souveraineté sur tous les côtés. monétaire économique. Euh, comment dirais-je énergétique sur tous les plans alimentaire donc tey fi ñu leen di xaar mooy bu gouvernement bi tegee nga ne ko mm. non lii ànduma ci man je préfère je préfère wala je propose ça absolument est war nañ leen foofu lañ leen gën a mun a xaaree quand waaw waaw mais soxna lal la man ak yow moom depuis bi ñu commencé waxtaan bi gisuloo ci benn attaque personnelle wala débat crypto personnel en tout cas sama bopp laa mën a waxal effectivement man gëm naa ni li gën a am solo ci réew bu ñuy waxtaan ci lu jëm ci réew na nekk ay débat yoo xamante ni yu am solo ay débat de fons débat yu euh, soxal askan bi souvent des attaques en dessous de la ceinture euh, dañ koy gis ci dans le champ politique man dama koy ñaawlu d'accorduma ci saaga d'accorduma ci respecté naa nag koo xamante ni mu ne ah Mamoudou li nga wax d'accorduma ndax lii ak lii ak lii Mamoudou itam saa yu waxee d'accorduma ci lii ñu nangul ko ko mu teg ay argument man ma jox la misaal d'abord ci suñu vision mm-hmm. soxna la ñun dañu ñëw en tant que demain c'est maintenant ñu ne engagement politique li ko lal mooy citoyenneté wax nañ ko ñëpp dégg ñu mm-hmm. ñu ne engagement politique li ko lal mooy identité ndax war nañu nangu rek ñun sénégalais ñu ne Sénégal daal bu ngeen koy juger juger leen ko à partir de 1960. ñun dañu ne déet suñu histoire gën naa xóot foofu. gën naa sori foofu. war nañu dem xool bu baax gëstu bu baax ci suñu histoire pour ñu xam suñu bopp. identité mais ñetteel bi dañu ne co-construction mm-hmm. parce que dañu jàpp ni Sénégal xëy na tabax nañu lu baree bari waaye am na lu des mm-hmm. li des mooy tabaxandoo mm-hmm. sama mag Boubacar kamara moo ne tabax mm. souvent bu ñuy waxtaan ma ne ko grand man dama ci teg brique boo xamante ni mi ngi tudd tabaxandoo <laughs> donc xam nga tabax ak mm. tabaxandoo mm-hmm. wax dëgg yàlla cela veut dire que bu ngeen waxtaanee di ngeen jubo mm-hmm. ñun démarche boobu la ñu am mm-hmm. nekkuñu ci démarche crypto personnel attaque crypto personnel wax nga sànq boo lan mooy bu ñu bu ñu waree critiquer lan lan lañ ciy teg ñun ma jox la beneen misaal bi ñu waxee assise de la justice ñun demain c'est maintenant dañu mës a wax ne bu ñu naree waxtaan ci justice buñ ko yemale ci justice cote nañ ko yaatal mu nekk les institutions te wax dëgg yàlla sénégalais yi depuis des années institutions yi def leen soxal assise nationale yi ma fàttali ko te pourtant nguur gu bees bi ñu nekkee ci kujj politique bi ñu signé ko keroog dégg naa waa assise nationale yi ñoom premier ministre Mamadou Lamine Loum ancien ministre Mamadou Ndoye mhm. ak ñeneen ak ñeneen nee nañu bind nañu sax le président de la république ba léegi tontuwu leen mhm. su ma juumul wax nañu benn yoon walla ñaari yoon mhm. ñun dañu ne les yemale le débat sur les institutions sur la justice ça relève d'une d'une vision étriquée nañ ko yaatal la preuve tey jii réforme justice bi ñu bëgg a def bu ñu bëggee mu mu mu mu mu nekk loo xamante ni lu ñoŋ la lu baax la lu dëgër la foog ñu xool aussi assemblée nationale. Mm-hmm. nan lañ ko war a xoolaate mm-hmm. nañ ko war a càmbare nañ ko war a tëggaate il faut ñu xool les pouvoirs du président de la république moom njiitu réew mi sax wax na ko keroog bi mu jàkkaarloog journaliste yi waxul ne. que le premier président de la République est trop puissant a, a trop de pouvoir mu teg ci ne le premier ministre est trop faible donc loolu lu mu wund mooy bu ñu yemale débat bi ci justice rek nañ ko yaatal mu nekk mu ñu porter débat bi sur les institutions ñoom ñu créer pan parmi les recommandations ci assise de la justice ñu ne haute autorité de la justice demain c'est maintenant dafa ne non non waruñu yem ci haute autorité de la justice il ne faut pas que li ñu vivre ci lu yàggul muy impacter suñu gis-gis suñu vision te man j'ai l'impression que loolu mooy problème bi ñun dañu ne non il faut créer une haute autorité de la république et de la démocratie ma jox la misaal président Macky ci njeextalu mandam mm-hmm. ñun ñëpp gis nañu par exemple décision bi mu jëloon lënkaloog assemblée nationale pour bëgg bëtal élection yi mhm. loolu nga foogoon ni bu haute autorité de la république et de la démocratie amoon est-ce que duñ ko mën a saisir mhm. walla mu auto saisir wu directement dem gis ak njiitu réew mi ne monsieur le président de la république lan moo waral décision bi xëy na mu joxe ay argument mais ñu ne ko non c'est pas des arguments défendables xoolaatal sa sa toogaay xoolaatal décision bi parce que lii mënul jàll balaa sax ñuy egg ci àtte mais alhamdulilah malgré tout malgré les insuffisances conseil constitutionnel taxaw taxawaay bu dëgër bu am solo peuple sénégalais askan wi taxaw taxawaay bu am solo mhm. ñun demee see maintenant ñu yëkkati suñu kàddu ne ànduñu ci ñu wooñu ci jaloog bi ñu dem mais bi ñu demee dañu yëkkati suñu kàddu ne lii ànduñu si mm-hmm. comme ni ñu taxawee woon bi ñu demee ci dialogue bu njëkk bi ne ñun ànduñu ci troisième mandat mm-hmm. ñun loolu mooy suñu doxalit ki ñu àndal itam mooy le premier ministre Amadou Ba ñu ngi waxtaan ak moom mm-hmm. ci ay principe parce que dañu mës a wax ne demain c'est maintenant autonomie de pensée autonomie d'action co-construction waxtaan tabaxandoo tabaxandoo lu tax mu am solo tabaxandoo dafay créer un sentiment d'appropriation mais dafay éviter aussi un sentiment de de de boo xamante ni dafay habiter ñenn ñi dama lay jox benn misaal ma jeexal foofu mat na at ma dem ca daral seeraas ànd ak suñu suñu ay membre ñu dem seeti leen ci wàllu maanaam élevage bi maanaam càmm gi ñu waxtaan ak ñoom vraiment lu bari ci souveraineté justement souveraineté alimentaire ci wàllu ndawal mm-hmm. yàpp souveraineté alimentaire ci wàllu meew nga xamante ni Sénégal mu ngi dépensé at bu nekk soixante milliards ci wàllu meew di importer li ñuy jéggaane ñun Sénégal effectivement la souveraineté ça nous parle Et de ce point de vue, nous sommes en phase avec l'actuel gouvernement sur la question de la souveraineté. Mais, bi ñu waxtaanee ci esprit co-construction parce que dama seetlu bi ñuy dem ci daral bi un moment am na benn tali bu dagg xar daral bi ñaar xam nga tali bi bi nga xamante dafa traverser daral li muy créer léeg-léeg parce que oto yi ñu ngi daw te ñëpp gis nañu gis nañu transport bi ni mu mel les accidents de la circulation mais soit nit ñi dañuy nekk en danger wala Euh, les les les les animaux dañuy nekk en danger bi ñu leen laajee mais euh, kii tali bi lan mooy ci seen xalaat mais ñu ne ñu monsieur kan bu ñu laajoon lan mooy suñu xalaat ñun dañuy wax nañu defar pont loolu mooy esprit co nga boole nit ñi ci waxtaan. ça ne veut pas dire que doo jël décision à la fin de la journée mais jiitalal nga waxtaan ak ñoom parce que boo waxtaan ak ñoom infrastructure boo teg dañ koy def seen moomeel. ëllëg quelque que soit problème yi ñuy jànkonteel du ñu xalaat dem di ko yàq parce que xam nañ ne seen moomeel la bu ñu ko yàqee seen alal la mm-hmm. loolu c'est valable pour yeneen domaine yoo xamante ni dañu jàpp ni ñun co-construction gis-gis bu am solo la képp ko ku ñu woo ci loolu dañuy waxtaan ak yow ku nekk nag ak li nga gëm nga wëy ci. d'accord balaa may ñëw ci dernier point bi pour ñu jeexal parce que euh, am na question spécifique boo xam ne boobu internautes yi ñoo ma ko yóbbante seen question la ñoom donc man fi may jeexalee mooy gis nañu chamboulement bu am ci conseil supérieur à la magistrature ñëpp ñenn ñi jàpp ne c'est dans l'ordre normal des choses bon ñeneen ñi jàpp ni sanction la euh, loolu aussi bëggoon naa nga andi ci sa sa xalaat waaw man bu njëkk d'abord man euh, wax dëgg yàlla am na ay affectation ak nomination yu bëri euh, dama koy rafetlu parce que am na si ñoo xamante ni sax xam naa leen xam naa ni ñu gëmee gëmee wàllu justice wàllu magistrature xam naa seen maandute xam naa seen bëgg dëgg te ku ne yoon ne dëgg mais dëgg à hauteur humaine parce que dëgg dëgg dëgg bu mujj bi bu mujj bi mooy yàlla rek moo ko mën yàlla rek moo ko am yàlla rek moo ko xam waaye justice dafa baax ci société te kuñ ko jagleel pour mu àtte mooy magistrat yi donc muy magistrat du parquet ak magistrature assise walla juge du siège nga xamante ni am nañu ay nomination am na loo xamante ni lu baax la am na ci loo xamante ni nag vraiment ñun man comprendre ma parce que bu ñu nee amoon na fi ay juge am ay problème ñu àtte ñenn ñi mhm. wala ñu jàpp ñenn ñi ñoom ñett ñeent ba juróom yëpp ñenn ñi yóbbu nañ leen Tambacounda mhm. ñeneen ñi ñu yóbbu leen ci yeneen service yoo xamante ni méngoowul ak niveau bu ñu toll woon ci wàllu hiérarchie judiciaire kenn mënul tere sénégalais yi ne lu tax lu tax Sénégal depuis depuis depuis saa yu ñu bëggee affecté nit kii mu nuroog sa sanction parce que mënuloo tere nit ñi jàpp ne aussi sanction la moo nekk ci ci ci ginnaaw ñu yóbbu leen Tambacounda dugg walla maatam mel ni ñooñu bokkuñ ci Sénégal donc loolu defe naa lu ñu war a bàyyi la parce que c'est dans la perception hein c'est la perception or euh, dara daxul Tambacounda mhm. dara daxul Kédougou mhm. suñu or ma joxe benn misaal rek du foofu lañu truc bu gën a rafet les les chutes de Dindi Felo or bi ñu bi ñuy génnee di ko yóbbu di ko jaay mu rapporter ay milliards ak i milliards du Kédougou la. effectivement et et ce qui est désolant d'ailleurs foofu ngay xame ni que yaa a un gros problème. Mm-hmm. avec les régions périphériques. ki la gën a am euh, koom-koom bu bu bu bu baax maanaam alal bu baax ci région yi. Mm-hmm. moo la gën a ndóol pratiquement. Kédougou gis ngeen ni Kédougou mel. Kédougou am na presque cinq cascades. mais je te dis walla ci wàllu mbay. Mm-hmm. nga jël région de Matam. bokk ci région du fleuve bi ñuy woowee le le le le grenier du Sénégal nga jël Casamance. Mm-hmm. la verte Casamance encore que tey li ñuy yàq ci Casamance kenn xamul ñaata la toll des mangues qui pourrissent. Mm-hmm. plus maintenant le ce malheur boo xamante ni kii nu c'est c'est tombé sur la tête ma mooy la rébellion pendant mm-hmm. presque quarante deux ans. Tambacounda comme ni ko sama mag Youssou Ndour doon waxee am na noppalukaay. man je me mais pour pour finalement casser tout ça population yooyu nañu génn ñi nga xamante ne affecté nañ leen ñu teeru leen teral leen. <laughs> Ah, ma waa Matam def nañ ko. am na benn benn jeune bu nekk ci Pastef Ah, eh, eh, biñ ko affecté waa Matam fi fi ma juddoo mhm. ah ñëpp xam nañ ni Fuuta <laughs> eh, teraanga fa la fekk baax mhm. mais de population yi dañu génn teeru ko teral ko mhm. donc loolu xëy na dina dina changer cette perception li ci des li ci des euh, nga permettre ma quand même de rappeler benn principe bu am solo ci wàllu magistrat yi d'abord am na benn principe bi ñuy woowee principe de l'inamovibilité xam nga inamovibilité lu mu tekki mooy la protection dont jouissent les juges contre les changements arbitraires par le pouvoir exécutif mmh. au cas où celui-ci serait insatisfait des jugements rendus par un juge autrement dit au nom de ce principe les juges ne peuvent recevoir d'affectation nouvelle sans leur consentement mmh. même en cas d'avancement Cette règle constitue l'une des traductions concrètes du principe d'indépendance de l'autorité judiciaire. France, par exemple, il parle d'autorité judiciaire. Mhm. Chez nous, on parle du pouvoir judiciaire. mais ma ma yokk ci l'article 90 de la Constitution du Sénégal dafa ne les juges ne sont soumis qu'à l'autorité de la loi dans l'exercice de leurs fonctions. Mhm. les magistrats du siège maanaam ñi nga xamante ni bu ñuy àtte dañuy toog ñu wooteeg ñu wuuteeg mhm. les magistrats du maanaam procureurs yi. les magistrats du siège sont inamovibles par opposition aux magistrats du parquet comme ni ma ko waxee l'article 91 de la constitution le pouvoir judiciaire est gardien des droits et libertés définis par la constitution et la loi ma daaneel ci la recommandation 13 des assises de la justice qui dit il faut renforcer l'indépendance du pouvoir judiciaire donc pour man affectation dafa mës a am waaye affectation bu mu doon sanction la boo xamante ne amul fuñ ko teg ça ne veut pas dire que les magistrats ne doivent pas être sanctionnés mm-hmm. mais bu ñu leen naree sanctionné c'est l'inspection générale mm-hmm. de l'administration de la justice IGAJ la ñu war a saisir et il y a eu des ci Sénégal gi mm-hmm. nga xamante ni ñu def ay fautes ñu traduire leen ñu sanctionner leen mais pouvoir exécutif bi bu muy user de ce pouvoir là mais surtout du surtout de sa présence au sein du conseil supérieur de la magistrature pour abuser de ce pouvoir mm-hmm. mu doon débat boo xamante ni bu yàgg am na ñoo xamante ni dañuy jàpp ni le président de la république war na continuer di nekk ci conseil supérieur de la magistrature magistrat yi sax travers l'UMS nee nañ leen gënal mooy président la république toog ci ci conseil supérieur de la magistrature mhm. mais damay fàttali le président Bassirou Diomaye mhm. bi mu nekkee ci kujj politique bi di wut nguur gi xamoon na xamoon na position magistrat yi sur la question mhm. mais mu promettre ne bés buñ ko fale mu nekk ci seen programme le premier ministre Ousmane Sonko président de PASTEF lui-même def ay déclaration ba tey gi c'est encore frais dans dans les mémoires ne bu ñu bis bu ñu amee nguur gi ñun gisuñu solo président de la république ak ministre de la justice di toog ci conseil supérieur de la magistrature man sama position mooy que ni gor ca wax ja la parole données le respect de la parole donnée merci beaucoup en tout cas loolu leer na euh, aussi euh, bëggoon naa nga ñëw ci benn question mooy est-ce que da nga bàyyi complètement métier bi pour dem ci politique bi wala da ngay allier les deux. waaw comme on di il ne faut jamais dire jamais. Euh, li ma def quand man bi ma jëlee décision engagé ak ñi ma nekkal demain c'est maintenant maa ngi leen di nuyu bu baax. Mhm. responsable yi ak tous les adhérents ci liggéey bu am solo ñu ngi koy def. man dama jël ñaari décision benn bi euh, ma déchargé wu de mes fonctions de directeur général ñaareel bi émission yi ma doon présenté itam ma aj ko parce que dama gëm ni euh, engagement politique am na fu muy toll euh, dafay jafe nga boole ko la gestion d'une entreprise de presse au quotidien mais ça ne veut pas dire que man Mamoudou damay fàtte li ma doon mhm. déet ba d'abord Mamoudou Ibra Kane c'est un journaliste formé mhm. journaliste boo xamante dafa exercer sa métier lu tax parce que dugg naa ci politique rek loolu yëpp ma fàtte ko nit ñi aussi ne euh, léegi loolu yëpp ñun fàtte nañ ko non comme ni ma koy waxee toujours avocat bi dafay engagé ci politique mais terewul sa formation d'avocat day des mhm. inspecteur des impôts et domaines bi kazalika naka noonu économiste bi kazalika naka noonu juriste bi de manière générale kazalika naka noonu mhm. donc comme ni ñu koy waxee euh, journaliste un jour journaliste pour toujours parce que réflexe bi dama ko am te defe naa loolu duma ko bàyyi te def may dimbali itam ci sama engagement sax politique ak citoyen mhm. ci li ma jàng ci journalisme te nag journalisme nag euh, am ay kii yoo xamante ni nag euh, suñu secret la <laughs> nest loolu dama koy utiliser comme mm. avantage ci engagement politique bi nga xamante ni nekk naa ci maintenant euh, de quoi demain sera fait comme on dit nous demain c'est maintenant mm-hmm. euh, bu jotee itam bu bu soobee yàlla dinañuy wax sénégalais yi ndax dañuy dellu di exercer pleinement la métier Euh, wala dañuy wéyal ci li ñu nekk tey gii moom li mu mën a wax mooy du mi ngi engagé ci politique wax dëgg yàlla regretté wu ko. Mhm. te fas yéene koy fas yéene na koy wéyal bu soobee yàlla. Euh, ba suñu mbébét ci réewu Sénégal maanaam doon réew bu naat réew bi ñu respecte euh, réew bu am souveraineté bu xam boppam mënal boppam loolu ñu taxaw ci bay ci suñu waar. Euh, bu amee joŋante yàlla may ñu fekkee ko tal ñu an kat am kattan bi ñu bokk si. Mm-hmm. parce que bul fàtte ni un moment donné déclaré woon naa sama candidature élection présidentielle. ma retiré ko joxe aussi ay argument yoo xamante ni soxlawul peut-être ma ciy dellu si. Mm-hmm. mais je pense que après l'histoire nous a quelque part raison euh, donné raison. Mm-hmm. parce que parrainage bi ñëpp gis nañ ni mu demee. parce que toujours damay wax ni bu fekkente ni Sénégal dañuy dem ba toll li mel ni nekk njiitu réew. ni mu amee solo ñuy wax que le président de la république c'est la clé de voute des institutions ñuy wuri maanaam di def loterie tirage pour xam kan mooy njëkk jàll kan mooy mujjee jàll ça veut dire que war nañu xoolaat suñu suñu processus électoral war nañu xoolaat suñu démocratie nu muy doxee war nañu xoolaat suñu institution yu ñuy doxee nu ñuy doxee Eh, defe na lool la eh, xalaat di jëriñ eh, li nga xamante ni aussi dund nga ko mu doon lu baax daf lay amal njëriñ wala nga dund ko mu doon safaan wa loo xamante ni baaxut loolu aussi daf la war a amal njëriñ donc ñun loolu mooy suñu gis-gis. Hmm. merci beaucoup en tout cas amoon nañu réel plaisir dalal la ci suñu ay programme donc Sénégal seet sa kër la de temps en temps peut-être dinañu am occasion saisir ko waxtaan ci point yu am am solo moo bàyyi la nga tàggatoo internet yi ba prochaine fois incha allah. waaw xanaa di la jaajëfal rek euh, soxna Lalla di nuyu sama rak euh, Pam Ngagne Diagne ah ah. su ma ko waaw loolu seen doyen léegi ça veut dire que ñun ay ay ay. non non non on est toujours jeune ah incha allah macha allah ah. Euh, donc di leen encourager rek di leen wax continuer leen ci liggéey bi di rafetlu itam vraiment euh, taxawaay bi euh, professionalisme bi nga xamante ni jiital ngeen ko parce que cela signifie aussi que métier bi tey loolu mooy la réalité mm-hmm. am nga média classique comme ni ñu koy waxee télévision mm-hmm. nga ñëw taal sa téléviseur di ko seetaan walla sa rajo encore que léegi transistor sax amatul <laughs> ci kii bi smartphone yi la ñuy mhm. déglu rajo wala seetaan télévision mhm. journal papier ba léegi mi ngi commencé ma ngi mi ngi continuer di wéy même si am na tey ay journaux électroniques mhm. site d'information chaîne YouTube mais li gën a am solo pour man parce que aussi jamono day dox jamono day dox euh, nit dafay ànd ak jamonoom mais toujours nag dif ko def di ko def fulla ak fayda surtout boo nekkee journaliste nga jiital professionnalisme bi su ko defee nit ñi gis ci seen bopp mhm. euh, suñu métier aussi gën a avancé donc maa ngi la ci encouragé yow personnellement ak mboolem équipe bu euh, Sénégal 7 mhm. merci beaucoup en tout cas amoon nañu un réel dalal ko muy euh, suñu doyen Mamoud Ibra Kane donc comme ni ma ko présenté le début restez connectés sur nos programmes Sénégal 7 ak 18 safar bi ñu jëm am nañu équipe bu am am solo boo xam ne moo leen fas yéene accompagner durant tout le grand magal édition 2024 euh, mention spéciale à la régie tuuti Ablaye coordination bi caw nii lay demee saa su nekk damay dem ba Sandaga nuyu Mamour moom moom euh, jàpp ci tenue bi di ko jaajëfal bu baax a baax di leen wax ngeen rester connecté ñu dellu si kuwaat si kanam tuuti amaat na beneen entretien spécial bu amoon solo donc mun ngeen ko xaar à partir de 15 heures incha allah d'ici la portez-vous bien à